lu sore sori xool bu xoolee nag day gis paxi bakkan yi ak gimiñ gi tàmbalee sotti am ndox ndax boobaa léegi ñetti fan la su ko defee moom ruu gi day jooy jooy yu yàgg-yàgg wëlbatiku nag di waxante yaram wi naa ko cay xanaa fàttalikoo ba ngay dund ba ngay dund day wuute naag fii nga nekk tey muy bërëb bu wéeta wéet bu bari tiis ak njàqare ak naqar akuk réccu daldi dellu nag su delloo ba tegaat ci juróomi fan moom roogi daal di waxaat suñu boroom ne ko te nga may ma dem xooliwaat yaram wa nga xam ne ca laa nekkoon suñu boroom daal di koy may ndigal ne ko demal su ñëwatee day dànd yaram wa fu sore sori di ko xool bu xoolee gis nag paxi bakkan yi di sotti deret mel ne gimiñ gi ak bopp bi ak nopp yi fu ci nekk dafa def dëtt dëtt ji jaxasoog deret mbaa dëtti kese róogi dellooti jooy jooy yàgg-yàgg door waxante yaram wi naa ko cey ni nga mel tey day wute naag da ngay dund fii nga nekk de moom bérébu tiis ak njàqare la bérébu ay jiit ak ay sax la sax yaa ngi nii lekk sa yàpp wi xotti sa deru yaram wi bu waxee loolu nag dellu demaatati bu ca tegaatee juróom-ñaari fan nag tàggoot yàlla ne ko te nga maa may ma dem xooli yaram waa nekkoon ba xam nu mel yàlla may ko ndigal bu ñëwee ba tey da koy dànd rek day dànd yaram wa moom ruugi day dànd yaram wa di xool bu xoolee nag day mel ne bi yoon moom yaram wi lépp ay sax lay doon ko defee moom ruugi day jooy jooy yàgg-yàgg ne cey li nga mel ak wuugu ba ngay dund cey ana sa doom yaag sa mbokk ya ana sa xarit ya nga xam ne ñoom nga daa bokkal gi toog di waxanteeg ñoom kàddu yu neex doo leen gisati duñ la gisati ña nga lay jooy rekk te bis penc ci ngeen di door a tasewaat waxan abi hurayrata radiallahu anhu annahu naka moom xaala waxoon na ne ida maata ndeem faatu na almuminu aji gëm ja taara naaw ruuxam nga xawla daar yi ca la wër këram nga chehran diiru weer fa yanduru te xool ilaa xalfihi jëm ci gannaawam xan xiyaalihi walis njabootam kayfa yuqsam naka la def fi séddalee maaluhu alalam wa kayfa yu addaa ak naka la def fi faye du yoonuhoo ay borom fa atam ma bu matalee shahran weer rudda kon delloof ko ilaa xabrihi jëm ca bàmmeelam ba faya dóoru te muy wandeelu xawla xabrihi ci la wër bàmmeelam ba sanatan jiru at sanatan jiru at yanzuru dana xool man ka nga xam ne yaddoxoo dana ñaan loxoo ñeel man ak nga xam ne yaxzanu dana jàq alihi ci moom wa isa tam mat nde mat na sanatun at rufiha kon yëkkateef ruuxuhu ruuxam nga ilaa xaysu tujmahu ba fa nga xam ne fa la ñu dajale al arwaax ruuya ilaa yawmil xiyaamati ba bispec net li boobu ci Abu Hurayra lañ ko jëlee mu ne ku gëm yàlla ki su faatoo ruuxam day naaw di wër kër ga lu toll ne diiru weer di xool gannaawam ba xam njabootam gi nu ñu def ak nuñ koy miraase séddale alalam ak bu fekkee ame woon nay bor nuñ ko koy fayale loolu la ruugi xool su nekkee foofa nag lu mat weer moom ruugi ndoor koo delloo nag ca bàmmeel ba mi wër nag bàmmeel ba rekk dana yàgg foofa nag lu toll ni at di wër rek bàmmeelu jëmm jim nekkoon di xool ba xam ñam bàyyi gannaaw ñan ñoo ko ci ñaanal ak ñan ñoo am metit ci faatu gi faatu ak ñan ñoo ci amul metit su nekkee foofa nag diru at moom roogi bàyyi foofa nag yàlla yëkkati ko yóbbu ko fa nga xam ne fa la ñuy dajale róoya ba bis penc wa an ibni habbasin ani nabii sallallahu alayhi wa sallam innal amwaata naka way faatu ya ida kaana ndéem am na yawmu iidin bisub xiit wa xaasuraau ak xaasura wa laylatul jumuhati wa laylatul jumuhati ak guddig ajjuma aw rajabun wala rajab wa laylatu nisfi shahbaana ak guddig genn wàllu baraxlu yaxrujoona danañu génn min xuboorihim tukkee ci seeni bàmmeel fa yaqifoona dañuy taxaw xalaa baabi buyootihim ci buntu seeni néeg wa yaqooloona dañuy wax ne wa yaqooloona irhamoonaa yërëm leen nu yërëm leen nu fii haadal yow mi ci bi la bis almubaaraki bari buñ barkeel bi sadaxatin ci sarax walaw bi luqumatin ak doonte ci ab tib la fa innaa naka muxtaajoona way aajowoo lanu ilayha jëm ca sarax sa fa in lam too toonaa ndeem joxu leen nu fadkurona na ngeen nu fàttalikoo ni ci ñaari rakk fii haadihi laylati ci gile al mubaarakati ga di barkeel hal min ahadin ndax amul kenn min kum ci yéen yadkuru muy fàttaliku xurbatanaa sunu tumuraanke gi yaa man yow mi nga xam ne sakkana dëkke na daara naa sunu kër wa yaa man yow mi nga xam ne nakaxa takk na nisaa ana sunuy soxna fa bind wa yaa man aqaama waasiha xusóori naa xëy na daa doon wa yaa man yow mi nga xam ne aqaama sax na fii waasihi xusóori naa ci aji yaatuy sunu pale yi wa naxnu te nun al aana léegi fii dayqi quburina noo ngi nekk ci xatu sunuy bàmmeel hal minkum ndax am na ci yéen min ahadin kenn yatafakkaru kook dana xalaat xurbatanaa sunu tumuranke gi wa faqranaa ak sunu ñàkk gi kutubunaa sunuy téere matawiyatun lu ñu lem lañu wa kutubukum te yéen seeni téere mansurat lu ñu tàllal lañu walaysa lil mayti te deddi ñeel néew ba sawaabun tuyaaba falaatan saw naa bu leen nu fàtte min xayrikum ci seenu yiw wa duxaa'ikum ak seen ñaan fa innaa naka nun muxtaajoona way aajowoo lanu ileekum jëm ci yéen abadan faw fa in wajadoo ndeem am nañu nag as sarax awit duxaa wala ñaan fa minhum bokk na ca ñoom man koo xam ne yar jongo dana dellu farihan mbir muy aji bég masrooran tey ku ñu bégal wa minhum bokk na ci ñoom man koo xam ne lamee jit amut shay an dara wayar jëxu te dana dellu mahroman mbir muy ko ñu xañ mahzonan tey ko ñu jàqal yaa isan tey aji naago ibnu Abbas moo jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa nett li bii ñu xoolaat nag bañ ko gisaatee feneen ba xam xalaa baabi buyootihim la wala xalaa abwaabi buyootihim fële itam hal minkum min ahadin yatafakkaru xurbatana ndax dafa doon yatafakkaru fii xurbatina wa faqrina ak nu mu demee net li bi bi daa wax ne ñi faatu day buñ àggee ci guddi walla bëccëg bu ràññe ko ci barke ni ki bisu xiit mbaa bisu tamxarit wala guddi ajjuma dafa tuddu rajab rekk nag turu weer wa te waxu ca benn lim ci ay bis ci niwet li bi ñëwee fii wala guddik nisfu shahbaan jamono yu barkeel yooyu nee na ña dañuy génn ca seeni bàmmeel ñoo taxaw ci seeni bunti kër mel na ne seeni roo ñooy ñëw taxaw ci seen bunti kër ya woon ci àdduna di waxanteeg nag ña nekk ca kër ya naa leen yërëm leen nu saraxeel leen ak lu mu tuuti tuuti doonte sax benn tibb rekk la xeebu nu ko ndax nun aaja woon nañu ko lool su fekkee mënu leen noo saraxeel kon fexe leen ba julli ñaar rakka te ñaanal nu ca xanaa amul ci yéen kenn koo xam ne dana di fàttaliku ni nu tumurankee yéen ñi nga xam ne gannaaw bi ñu génnee àdduna yéen dëkke sunuy kër takk sunuy soxna nun nag nu nekk fii ci bàmmeelu xat yii xanaa amul ci yéen kuy xalaat ni nu tumuraanke ak ni nu ñàkke yéen ba tey mën ngeen a def lu baax ñu bind leen ko ci seen téere jëf nun nag suñuy téere jëf lem nañ ko noppi aw yiw woon ca def yombatunu xanaa rek li ngeen dinu ñaanale ak saraxeel kon nag bu leen nu fàtte ci ñaan yeeg sarax yi aajowoo nañ ko lool mu ne nag bu ñuy dellu ca seen bàmmeel ya danañu wuute am na ci ñoo xam ne dañuy dellu ànd ak mbégte lool tàlli lool ndax ñañ bàyyi woon gannaaw dañu leen di fàttaliku ci guddi yu tedd yooyu ak bëccëg yu tedd yooyu di leen ñaanal ak saraxeel am ci ñoo xam ne nag ñoom buñ dee dellu dañuy am tiis ak njàqare lool akuk naagu ndax ñañu bàyyi gannaaw daal dañoo sàggan lool ci may leen ñaan mbaa sarax wa fi bushra al kaibi qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna nafsal mu'mini naka bakkanub aji gëm ja isa qobidat ndéem ngëbeef na ko mooy buñ ko faatee rek talaqaaxaa dal koy teeru ahlu rahmati ñu yërmaande min ibadillahi ci jaami yàlla ya tama talaqaw na ni ngeen di teeroo albashira aji xibaar ja xibaarub mbégte min ahli dunia ci waa àdduna wa yaqooloona te ñu wax ne utrukoo bàyyi leen saaxibakum seen waa ji xataa yastariha ba mu noppalu fa innahu naka moom kaana nekkoon na fii karbin ci njàqare shadidin luy aji tar tumma yasaluunahoo topp danañu ko laaj maa lan la def fulaanun diw mu góor wa fulaanatu ak diw mu jigéen waxal tasawajat ak ndax sëy na fulaanatu diw mu jigéen wa naxwu dalik ak lu mel ne loolu wa fii nekk na ca innal mu'mina nag aji gëm ja yasxadu dana yéeg ruuxuhoo ruuxam ila samaay jëm asamaan fata tiixi te koy dikkal arwaaxul mu'minina ruy way gëm ña fa yastaxbiroonahoo te ñu koy laaj xan mahaarifihi walis ña mu xamanteeloon min ahli dunia ci waa adduna wa fii nekk na ca ni annahu naka yonante bi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna ruuxa yil muminayni naka yaari ruux ñaar ñuy aji gëm layal taqiyaani danañu tase layal taqiyaani xalaa masiret yawmin ci lu sore ne doxub benn bis wa ma raa te na gis ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar saaxibahu moroomam xattu mukk ba tey boo dee xool ca bushral ka it andi fa addis bu ne yonante bi daa waxoon ne ku gëm yàlla su faatoo ba dem alaaxira ñam fa fekk ñu nekk di gaa yu baax ba tal ko am yërmande dañ koy teeru di ko yàkkamti laaj waa àdduna jëm bàyyi ko ni nga xam ne rek bu kenn dee xibaar xibaaru mbégte noonu lañ koy teeroo di yàkkamti la muy wax kuy door a faatu bu demee ca àllaaxira ñi gëm yàlla ne moom te am yërmande ba tal ko noonu lañu ko yàkkamtikoo di ko teeru di ko laaj naa ko ana ña nga bàyyi gannaaw diw mu góor nu mu def diw mu jigéen nu mu def ndax diw séy na ak yu mel noonu su ko defee ñenn ñenn waaye bàyyi leen ko mu noppalu fi mu jaar léegi ci faatu geeg jaar jaar yi daam metti bàyyi leen ko mu noppalu bu noppaloo na ngeen laaj ko mu teg ca it ne wax na fa ne ku gëm yàlla ki bu ruuxam demee asamaan ruuy way gëm ñam fa fekk dañ koy laaj ñañu xamoon ca àdduna naa ko ana diw ana mu ni addis ba nee na ñaar ñu gëm yàlla mën nañoo sore lool seen diggante mat doxub bisub lëm nga xam ne seen yaari jëmm yi sax mësuñoo gisante benn yoon te du tee seen yaari di tase ak a gisee wa fii ci nekk na ca maa xam ne lafzuhu baatam mooy axraja génne woon na ibnu abi dunia xan abi lubaanata lam maamaata ba faatoo bishrubnul barra wajidat jàq na alihi ci moom ummuhoo yaayam wajidan jàqare shadidan luy aji tar fa xaalat mu daal di wax ne yaa rasulallahi laa yesaalu du dañ alhaaliku aji faatu yahliku di faatu min bani salamata ci bani salama hal tataarafu ndax dana xamante almawta way faatu ya fa ursila ba may yónnee ilaa bishrin jëm ci bisr assalaama nuyoo ba xaala mu ne ko naxam waaw wala si naa ci yàlla mi nga xam ne nafsi sama bakkan bi yadihi nag na ci loxoom innahum naka ñoom yataxaarafoona danañu xamante dama yataxaarafu ni ki xamante ab tayru njanaaw yi fiiru aussi shajari ci cati garab yi wakaana nekkoon na laa yaxliku du faatu xaalikun jann aju faatu mim bani salamata ci bani salama illaa jaatu ndare bu ko dikkalee umm bishrin yaayu bishr fa qaalat mu ne ko yaa fulaanu yow diw alayka yàlla nekk ci yow assalaamu jàmm fa yàqoolu mu koy wax ne ko alayki yàlla nekk ci yeyit assalaamu jàmm fa taqulu te mu koy wax ne ko fa taqulu aqri jàngalal min nii ci man assalaama nuyoo ba bishran bishra mu ne ibnu abi dunya jël na ci abo lubaana mu ne ku ñuy wax bishr ibnul bara ba mu faatoo yaayam da ca am metit lool mu ne yonent bi banu salamata gii day saa yu ne am ñu ciy faatu bàyyi ko àdduna jëm alaaxira may laaj nag ba xam ndax ñu faatu ñi foofee ca alaaxira daañu gisante ak a xamanteem déet ndax kon su ma gisee kenn ci banu salamata mu mel ne ku jëm alaxira ma yóbbante ko ab nuyoo ne ko ma sama doom ja Bishra yonent bi ne ko waat naa ci yàlla mi nga xam ne moo moom sama bakkan way faatuñu day dañuy xamante ni nga xam ne moom la picc yi di xamante ci kaw garab yi ñi dañuy xamante bu baax ni nga xam ne moom la picc yi di xamante ci kaw garab yi noonu la ñafaatu itam di xamante foofe ci àllaaxira foofe nag fala yaayu bisur moomu tàmbalee bu gisatee koo xam ne defe na ne ak faatoom soreetut mu ñëw nuyu ko kooko fay ko mu ne ko soo ma jiitoo foofee ci àllaaxira nuyul ma bishru sama doom ja wa fiihi nekk na ca axraja génn na ibnu abi dunya xan said ibni jubayrin xaala mu ne ida maata ndem faatu na almaytu néew ba istaqbalahoo teeru ko wala duhoo doomam ja kama yustaqbalu ni ki dee fi teeroo alxaayibu aji fàddu ja mu ne ku faatu da fekk am doom ju ko jiitu woon ci àllaaxira bu demee day fekk doom joojee di ko teeru ñi nga xam ne rek bu amee ku tukki ci sa waa kër te nga xam ne mi ngi ñëw moom nga koy teeroo ko séentu ku am doom ji faatu mu jiitu la it noonu la lay teeroo foofee ci àllaaxira wa fii nekk na ca mu ne axraja ibnu abi dunia xan saabit al bannaani mu ne bala xanaa jot nanu ne ànnal mayta naka néew ba ida maata ndem faatu na ixtawachathu peeg ko maanaam wër ko ahluhu ñoñom wa aqaaribuhu ak ay jege ñaaleem allësina ña nga xam ne xadd xadamoo jiitu nañu minal mawta ci way faatu ña fa huwa moom farihun aji bëgg la bihim ci ñoom waxum ñoom itam farixoona way bëgg lañu bihi ci moom kal musaafiri mel ni aji tukki isa qadima dem ñibbisi na ilaa ahlihi jëm ci ñoñam muy waa këram nim bind nag ixtawashatu da cee juum def istaw xashathu waaye da nga koy defaraat ihtawashathu bu ñu nee ihtawashu ashay'a wala ihtawashu ala shay'i mooy axaatu bihi wa ja'aluuhu wasatahum mu ne jële nañ ci saabit albanaan yi mu ne ku faatu bu demee foofee ca alaaxira ne ko jiitu woon di ay jegeñaaleem bokk ci waa këram dañ koy daldi wër bëgg ci moom lool moom itam mu bëgg ci ñoom lool ni nga xam ne rek waa kër gi ci àdduna bu amee ku ca tukki bu ñibbisee moom la ñuy bëgge ci moom rek ku door a faatu dem alaxira itam noonu lay mel ci ña ko jiitu ci waa këram ak i jege ñaaleem wa fii nekk na ca ne anna nabiya naka yonante bi sallallahu alayhi wa sallam qaala waxoon na ne innal mayita naka aji faatu ja yaarifu dana xam man ka nga xam ne yaxsiluhoo dana ko sang wa man ak ka nga xam ne yakfinuhoo dana ko sàng wa man ak ka nga xam ne yaxmiluhu dana ko yenu waman ak nga xam ni yuddu lii dana ko yoor fii xabri yi ci bàmmeelam mu ne addis ba nee na yonante bi daa waxoon ne faatu teewut a xam ku faatu dana xàmmee ka koy sang xàmmee ka koy sang xàmmee ka ko yenu di ko yóbbu xam ka koy dugal ca bàmmeelam wa fii nekk na ca mu ne axraja abu nuaymin fil xilya xan xamr ibni dinaar xaala ne maamin maytin amul benn néew yamootu boobu dana faatu illa illaa ruuxuhu dara nga xam ne ruuxam nga fii yadi malakil mawti nekk na ci loxol malaakam deema yanduru di xool jasadahu yaramam kayfa yuxasalu naka la ko defi sange wa kay fa yukk fanu ak naka la ko defi sange wa kay fa yumsha ak naka la defi doxe bi ak moom wa yuqaal te defi wax lafa ñeel ko waxuwate fekk na moom xalaa sariri yi nekk na ci kaw jaatam nga naa ko isma a déggal tanaa an taggu nit ñi alayka ci yow andi na foofee ci xel ya jële ca Xamru bnu Dinaar mu ne ku faatu ruuxam day nekk ci loxol malaakam deema di xool nag nu ñu def yaramam nekkoon naka lañ koy sange naka lañ koy sànge naka lañ koy yóbboo dañuy wax sax néew ba ba mu nekkee ci kaw jaar ga naa ko déggal nit ñi ni ñu lay tagge ak ni ñuy waxee sang mbaax ruu moom loolu lépp lay xam jëm yarawa nag moom mënul dara rek waaye du tee ruu moom di gis di xam wa fii nekk na ca mu ne axraja ibnu abi dunia xan sufiyaan xaala ne innal mayta naka néew ba lay arifu dana xam kulla shay'in mépp mbir xataa innahu ba naka moom sax layu naashidu dana jéebtaan xaasilahu aji sangam ja ako billaahi maa ngi lay jéptaan ci yàlla illaa xafafta ndare nga wayafal xusli sama càngaay ba tey jël nañ ci Sufyaan mu ne faatu teewut a xam man nga ne sax ki faatu lépp lay xam day xam sax ka koy sang banaa ko waa ji ngir yàlla def ma ndànk rekk sang ma ndànk waxoon ne ni loolu ruuga ci boppam moo koy wax weesu woon nañ nett li boobu bu gën a yaatu ca gannaaw wa fiihi nekk na ca axraja ibnu abi dunya xam bakrin al muzani xaala mu ne xoddistu nett leef na ma ne àndal mayta naka néew ba yastabshiru dana bég bi taajilihi ci ak gaaweem ilal maqaabiri jëm ca armeel ya ba tey ku ñuy wax Abu Bakar al Musani nee na wax nañ ko ne ko ku faatu day bu dee ku nar a texe te yàkkamti lool ñu gaaw ko yóbbu suuli ko luñ ko gaawe rekk mu xeeb ko loolu nag ba tey weesoon nañ ab nettali ca gannaaw bu ko leeral bu baax a baax wa fiihi nekk na ca innal mu'mina naka aji gëm ja ida maata ndem faatu na bakkaay jooy alayhi ci moom musallaahu jullikaayam ba minal ardi ci suuf wa mashadu yi ak yéegukaayu jëfam ja fi samaay ci asamaan wa fiihi nekk na ca ba tey axraja at tirmidiyu wa abu yaala wa bunu abi dunya xan anasin jële ci anas radiyallahu anhum anna nabiya naka yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne maa min amul jenn ajigam illaa walahu te da nga xam ne ñeel na ko baabaani ñaari bunt fi samaa yi ci asamaan baabul ab bunt bunt yenn silu boobu dana wàcce risquhoo wërsëgam min hu tukkee ca moom te isa maata ndem faatu na bakka yaa ñu jooy ñoom ñaar alayhi ci moom ku gëm yàlla daal su faatoo fa mu daa jullee ci kaw suuf ak fa jëfam ju baax daan jaar ci asamaan si di yéeg yaar yooyu dañu koy jooy ba tey ñett bi ci topp na yonante bi moo waxoon ku yàlla ku ne am nga ñaari bunt ci asamaan bunt boo xam ne boo jëfee jëf ju baax ca lay yéege ak bunt boo xam ne wërsëg wi la yàlla nattal dogal ko ci yow ca lay jaare di wàcc muy ñaari bunt ci asamaan yoo xam ne kon ajëgam ju ne nee na am na ko léegi nag mu ne nag bu ajëgam ji faatoo ñaari bunt yooyee yépp a koy jooy wa fiihi nekk na ca li axraja abu nuaymin xan xataa in alxarasaanii qaala mu ne maa min xabdin amul benn jaam yasjudu boobu dana sujjoot lillaahi ñeel yàlla sajadatan ab sujjoot fii buqatin ci ab pàkk min biqaaxil suuf si min biqaaxil ard illaa wa shahidat ndare mu seere laxoo ñeel ko yawmal qiyaamati ci bis penc wa bakatte mu jooy xale yi ci moom na yamootu ci waxtu dana faatu abu nuaymin jëli na ci xataa alxarasaan yi mu ne ab jaam fu mu sujjootal yàlla ci kaw suuf bu faatoo rek béréb boobee dana ko seereel jëf ju baax jam fa defoon muy sujjoot ba te dana ko jooy moo tax ñu def boo jullee farata ba noppi danduwaat naafila feneen fi bokkut ak fa nga doon jullee farata ndax bëgg rek béréb yépp seere la bu bis pencee wa fiihi axraja aboo hadiyin fil kaamil wa abu manda wa bunu xasaakir fi taarixihi an ibni omar an nabi sallallahu alayhi wa qaal innal mu'mina naka aji gëm ja ida maata ndem faatu na taxallat takkaayu almaqaabiru armeel ya bi mawtihi ca faatoom nga falaysa minha dir mi am ca armeel ya buqatun benn pàkk illaa waxiya dara nga xam ne moom tata mën naa dana mébét an yudd fana bu dee fi ko suul fiihaa ca moom